Elhadj Ousseynou Ndiaye dal yi nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal di koy door ak laatiir bi ni yéenekaay gi dañoo xam ne jamono ci ne rek moom moo di covid 19 ne donte yi moo di covid 19 tey jii kay la jàngoro ji gën a fararari tey itam la jàngoro ji gën a faat yéenekaay gi dañu xam ne démb kay li xew jaaxal na askanu Sénégal téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay cas yoo xam ne jot nañu ko am te ñooñee téeméer ak juróom benn ya ay cas communautaire lañ mooy ñi nga xam ne ñoo gën a garaaw Ousmane Dia yëkkati kàddu du ñu xamal ne kay jamono ci réewum Sénégal ak ni muy doxee boo moytul dinañ dem ci confinement du ñu xamal ne jàngoro ji na muy yi ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal dafa mel nag dañoo xam ne rek jàngoro Covid 19 ji moo leen faat l'observateur yéene kaay moo ñu ko xamal ci ñaar ne jot nañoo génn àdduna ci jàngoro Covid 19 ji téeméer ak juróom benn fukk ak benn ñoom dong la sapeur pompier ne ñi ngi koy jànkonteel ci seen ak liggéey ne jàngoro Covid gi da di faat waaye askan wi lànk ne leen du ngeen ni laal suñu néew loolee bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel waaye tamit ay jumtukaay yoo xam ne dañu ko manqué hôpital dalal jàmm jàmm amatu fa ñoom kay kuy manqué a manqué yéene kaay gi duñu xamal xam ne jamono ji kay mbaala am ak docteur Diouf ñoom kay kàddu yi nga xam ne yëkkat nañ ko kay dañoo xam ne moo wax dëgg laa professeur bi moo wax dëgg laa maanaam daal nguurug Sénégal Macky nii nga xam ne noonu la defee ci hôpital dalal jàmm nga xam ne daanaka kay ab dispensaire la naan dañ

waar boo moytul kay dana matt yeneen i réew yi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique sow ja ñi leen bëgg nguur lool langaamu lank bañ a joxe nguur ga lu ci mel ni Sénégal Guinée Bissau yéene kaay gi duñu xam boo moytul nañu def nànk ca lool Mamadou Diop Decroix ci yéene kaay gi duñu xam ne daal lii ngeen di wax daal réewum Sénégal bu yeboo ngeen ko ciy ndax kay njiitu président de la République Macky moom kay xel Quotidien yéenekaay diñu xamal ne dialogue national ba fii ñaari fan danañu ko tàmbaliwaat Famar Ibrahima Sagna ak ñi mu àndal yoo xam ne rek dakkale woon nañ ko ndax jàngoroy covid 19 jamono ji nag ca waxtaan ya dana ca bokk waanaam daal datuk élection locale fan lañu koy yóbbu waaye tam ñetteelu mandat ga danañ ko waxtaane de yéenekaay diñu xam ne ay jafe-jafe yu metti yoo xam ne ñi koy jànkonteel muy hôtel yi nga yi nga xam ne ñoo nekkee ci Dakar ne moo tànn ca hôtel yooyee muy Mbour Sud Quotidien nañu nag mbir yooyee noonu la demee laas yéenekaay duñu xamal ne ci accident yu metti yi nga xam ne mooy am ci réewum Sénégal ma ngay tàmbaliwaat yéenekaay bi duñu xamal bokk na ci la koy sabab nag maanaam daal pneu oto yu bon ak dawalkat yoo xam ne mënuñoo dawal di fararari ci àll bi yéenekaay bi duñu xam ne accident yooyee daanaka lu toll ci juróom benn téeméer ci ay nit yoo xam ne at mu jot dinañu faatu ci xam ne rek ñoo nekkee ci kaso bu Jurbel jaxannama dëgg kay la dund ay fitna yu metti yoo xam ne dañu koy jànkonteel moo xam ñuy rëcceeg yu ni mel ba léegi ci yéenekaay gi mu ñuy xamal mbir mu doy waar mu xew ci Louga yéenekaay bi dañu xamal ne benn waay daal la jàppoon kaso tëj ko samedi la génn kaso dimanche mu daal di sàcc xarum nijaayam duggaat ca kaso ba mu nekk nag mbir mu doy waar tàmmu laago la cim